nguuru Sénégal nangu na benn ci ponk yi nga xam ne ni Greenpeace moom lay sàkku bob ba léegi mu di fësal listu bato yi nga xam ne may nañu leen ñu napp si ci waaxi Sénégal bile ONG di rafetlu bu baax a baax bile dogal di ñaax rekk nguur gi ñu bañ a teggi seen tànk ci jéego yi ñu tàmbali ngi indi ay joyanti ci anam gi nga xamee ni noonee la ñuy nappee ci mim réew. nekk na mesure boo xam ne ñu ngi koy rafetlu parce que nekk na xeex bu yàgg boo xam ne Greenpeace mu ngi koy def mais aussi acteurs locaux yëpp. ñi nga xam ne ñëpp ñu ngi yëngatu ci wàllu napp bi ñu ngi doon laajte gouvernement bi fi jóge bi pour mu publier liste ñi nga xam ne ñoo nekk di nappee ak gaalu saxaar ci géeju Sénégal. Greenpeace nag nee nañu am na lu des lu am solo gannaaw bu ñu fasilee bile liste li des mooy ñu saytu anam gi xamee ni bateau yi ñu tudd ni mën nañu napp see si réew Sénégal naka la ñu def ba am seeni licence de pêche. wane nañ ñan ñoo nekk di napp léegi dañu war a xool ñooñu nan lañ def ba dugg ci waaxu Sénégal yi ba ciy napp. donc loolu audit moom moo koy wane te audit boobu noonu war na mën a wane ñi nga xam ne ñoom ñu ngi ci napp ñu ngi ci lisim nan lañ def ba nekk ci ak yan yoon lañ jaar ba nekk ci. ngir sax yëf yi gën a jaar yoon. Greenpeace ñoo ngi sàkku si nguuru Sénégal mu def lay kàttanam rek ba bokk ci réew yi nga xam ne ñoo lëkkaloo ci FITI di initiative pour la transparence des pêcheries. loolu suñ ko defee dinañ xam chaque instant. contrat yi dinañ leen publier licence yi dinañ leen piblier tout ce qui yi dañ koy publier ba ñëpp xam ñan ñoo nekk di napp nga xam ne dara dootul nëbbooti ci wàllu napp. ñoo ngi sàkku it nguur gi gën a defi jéego si lu soxal wàllu recherche di gëstu bi tàmbalee ko nag si CROD di centre de recherche océanographique de Dakar li ñu bëgg daal mooy gouvernement bi jox jumtukaay yi war boobule centre.